Salam alaikum wa rahmatullah nous sommes les ziar je ma un grand bi le journaliste alimentaire le nervi médiatique de Maki et de Amadou Ba mais grand ce titre bi en tant que professionnel hein, un grand intellectuel un grand journaliste Il bind titre bu bon bii nii nga a bah premier détenu politique du régime Diomaye mais ba joxate nekkagul détenu di ba joxate fum nek ni nii mu ngi nekk garde à vie détenu politique moy ko xam dafa nek en détention détention moy kuñ djel yobula maison d'arrêt et de correction waaw moy ko xam dafa nek en détention am ñu wax détention préventive ko xam atté guñ ko mais grand yow tamit même lii bu doon dëgg sax yow naka nga mën a encourager nit koo xam ne dafay saaga ay ndey saaga ay ndey jàmbur di jiiñ baayu jàmbur góor jigéen mais grand imaginel Bah li mu wax Ousmane sonk suñu génne woon turu Ousmane Sonko yow dugal la fa mais grand ku noonu loolu dina metti ah doomi Ousmane Sonko yi bu ñu gisee li Bah Diakhaté doon wax seen baay day metti yow loolu grand suñ ko don wax sa papa nan lay mel ci yow ngay encourager ko xamné c'est un insulteur day saaga ndey nit ñi mais grand ñun nous sommes des démocrates nous sommes des républicains mais opposer leen quoi opposer leen attaquer leen Ousmane Sonko ci gestion yam wala mu jël ben décision ngeen non Ousmane Sonko lu mu jël ànduñ ci Ousmane Sonko xamul dara hein yoy yëpp man ngeen ko wax hein su leen neexee sax mu wax dara ngeen ne ko waxo deug lolu yeb grawul mais yéen a ngi dégg Bah Diakhaté li doon wax Ousmane Sonko mais wax yoy man daf ma daf choc man choc daf ma choqué bima diglo dégloo Oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Ndao tamit dama choqué choc bu metti lama defon wa legui léegi détenu politique bi ngay wax ma ñewat ci yeen sen procureur bi ni mom mo japp ba jaxati di procureur bi sen procureur de kii mooy Abdou Karim Gueye seen procureur bi moo remplacé seen beneen procureur bi amaru Diouf xam nga Amadou Diouf mooy grand wu Abdou Karim Diop waaw léegi Macky Sall jël ko di koj Ousmane Sonko cour d'appel jël koo xam ne rakkam xaritu Ousmane Sonko la woon mooy Ibrahima Bakhoum yóbbu ko def ko procureur général yóbbu Amadou Diouf def ko président cour d'appel Amadou Diouf boobu noonu ak booyam bi Karim Diop ñoom la Macky Sall chargé woon dossier Pastef pour ñi japp wa Pastef di len tej di len tuumaal di def ay conférence de presse di sos wa kon kañ Ousmane Sonko mom santul kenn ne nañ ko arrêté Ousmane Sonko awul procureur nako ko arrêté Bah Diakhaté bi sen procureur bi doon japp Ousmane Sonko nan ko rebelle la nan ko euh, terroriste la nan dafa def appel à l'insurrection ah mais kooku mo japp ba Diakhaté de changé guñ ko nag xam naa dinañ ko changé ci kanam mais dama leen wax ak moom démb mu ngi leen doon defal lu leen neex waaye génne leen Ousmane Sonko ci affaire bi waaye Ousmane Sonko yoonam nekku ci Ousmane Sonko yëgul sax ne Bah Diakhaté mu ngi koy saaga xamul sax ne am na benn doomi aadama buy dund bu tudd Bah Diakhaté ak ko tudd Oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw boroom kalimatul xaq léegi xam naa ne moom bu jàkkaarook enquêteurs yi moom kalimatul xaq gi moom xanaa dinañ ko ko man su waroon enquêteurs yi nag xam nga lan laay laaj oustaz euh, Cheikh Tidiane Ndaw damay teg audio yi di ko déglu par benn benn chaque point rek ma ne ko waa lii lan la ci charia wax ak yonent bi lan la wax ci lii ne ko indil ma ci point bi benn ayat alxuraan lan la ci yàlla wax ak yonent bi lan la ci digle su ma doon enquêteurs yi digi man noonu laa koy enquêter quoi mais kon euh, grand Babacar sincèrement man foogoon naa ne di nga def lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax mooy unzur axaaka zaliman aw mazluman dimbalal sa mbokk bu ñu ko tooñee ak bu tooñee yow sa mbokk mi dafa tooñ yéen maanaam yéen li ngeen di def euh, c'est irresponsable quoi et puis c'est lâche ay sénégalais ngeen comme ñun war bëgg réew mi sénégalais yi ñoo dogal ñoo ne Ousmane Sonko ak Diomaye ñoo leen doy Ousmane Sonko ngeen recalé ko Bolé justice bi ñu dañuy Ousmane Sonko nek candidat ba candidat Ousmane Sonko joxoy Sénégalais bëgg Ousmane Sonko bëgg gu dayo ba Ousmane Sonko président Bassir Diomaye Faye au premier tour lu masta am Sénégal à 54%. wa yeen Sénégalais majorité bi mais démocratie c'est la majorité la loi de la démocratie, c'est la majorité. waaw ñoo xam ils sont fraîchement élus Hein? sénégalais yi teg leen ci bopp réew mi ne leen lañu wóolu Ousmane Sonko yow yaa ñu doy bëgg nañ la motax tax bi ñu waxee voté leen leen ñu voter jomay wa il faut respecter ces sénégalais là yeen minorité ñen té yeen ngeen ne seen intérêt personnel motax tax di xeex mais yeen xeexu leen objectivement quoi yeen nit ngeen amal problème ben nit mooy Ousmane Sonko. ni ko yàlla def moom ngeen mënte nangu nee nee nga yéen du ngeen nangu nu yàlla mel melal Ousmane sonk gis nga yàlla dafa bind nit ñi te yemoyewu leen comme ni mu bindee juróomu baaraam yi ñu sutante xam nga suñu juróomi baaraam yi dañoo sutante moo tax yàlla wax na ko ci alquran nee na unzur kayfa faddalna baadahum ala baad wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila mu ne xoolal ni ma gënalee nit ñi fii ci kaw suuf ah nit ñi dañoo ëppante daraja te bu ñu demee àllaaxira tamit noonu la ñuy ëppantee daraja nit ñi mënuñoo tolloo mu ñëwaat ci yonent yi nga xam ne moom moo leen yónni mu tànn ci juróom gënale leen ak ñeneen ñi mooy yooyu ulul azmi yonent yàlla nuux yonent yàlla ibrahim yonent yàlla moussa yonent yàlla isa ak yonent yàlla muhammad من تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من يوعد من ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض يلا نينا دفا غنل يونتي يونتي تولو وني اي درجه وا لي عثمان سونكو دي سنغالي فك باخ سنغال nek nit ku bax jiddo fu bax jiddu fu mu wara jiddo bimu waré jang mu mu am droit ne dafa soxla réew mi laaj réew mi sénégalais yi bëgg ko ne ko dinañ la jox réew mi ngeen xeex ko mu tànn koo xam ne moo toppoon ci moom di président Bassirou Diomaye fay ne ko maay yow te yaay man soo koy Diomaye Diomaye mooy Sonko wax sénégale yi ne yéen da ngeen maa bëggoon def président xeex nañ ma léegi votel leen Diomaye man ak moom benn la rek ku nekk président baax na waaye léegi yéen ngeen ne loolu du ngeen ko nangu yéen d'accord nañ ngeen opposé bañ len Ousmane Sonko mais lu mu def ne leen baaxut lépp lu mu def rek wax len ne leen waaye kii lu mu def baxul même bu jëloon ay tali or defal ko Sénégal ak ay immeuble jamaa taxaw len ne li baxul bu liggéeyoon Sénégal ba Sénégal nek le pays le plus développé au monde taxaw len ne Sénégal c'est le pays le plus pauvre au monde lu def rek ne leen baaxut waaye bu leen ko saaga ngir yàlla bàyyi leen saaga yi loolu kañ yomb na saaga yi jaru ko maanaam yéen saaga yi da ngeen ci ridiculer nit ñi dañ leen ci xeeb bañ leen ci jaru ko jaru ko ngir yàlla yërëm leen seen njaboot yi Sénégal benn bopp la kenn munu ko xar ñaar ñun ñëpp ñoo ko bokk da ngeen fee nekk douze ans di def lu leen neex di wax lu leen neex Macky Sall protéger leen boole leen ak ay juge ak ay procureur am ne leen saaga leen ku leen neex wax leen lu leen neex plainte bi bu demee kenn du ko diligenté waaw léegi saaga yooyu nag ça ne peut pas continuer nekk jeex na parce que régime ba changé na léegi réew ma dañoo bëgg mu nekk réew yoon ku bokk Pastef bu leen saagaa yéen porté leen ko plainte dañ koy teg ci yoon ah waaye yéen tamit respecté leen nit ñi bàyyi leen saaga yi ngir yàlla Ousmane Sonko borom njaboot la Ousmane Sonko sénégalais dañ ko bëgg c'est le guide de la révolution sénégalaise Ousmane Sonko dafa siiw ci aduna bi ñepp ko xam Afrique ñepp partout waaw bu len nexé ñen baña nangul liko Yalla ko may mais bu len ko saga bay len diko saga c'est tout alaykum wa rahmatullah